ba ca des euh, mbokk yi beneen nettali boo xam ne bu yéeme la itam ci wàllu sant dañu ne dafa am nit ko demoon ci ab boroom xam-xam bu nga tudde ko sëriñ di ko jàmbat ak ñàkk ne ko man daal dama ñàkk lool sëriñ ba ne ko wala borom xam ba ne ko ndax doo rus di jàmbat sa boroom yàlla te xéewal yim la defal ëpp na ay junni ne ko ndax am nga ay bët mu ne ko waa am naa ay bët mu ne ko waa jëlal bët yi fukki junni lay jar am nga làmmiñ mu ne ko am naa ko mu ne ko jël koo ñaar fukki junni lay jar yaa ngi noyyi mu ne ko acca fanweer yaa ngi dox ñeent fukk am nga xel juróom fukk mu ko dajaleel mu dajale ko mu ne ko yii xaalis bu bari la mu ne ko kon mën ngaa dem kon doomu aadama fu mu toll moom am na koom waaye la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek al ghina ghina nafs koom mi ngi ci bakkanu doomu aadama bi moom bu ko xoolee rek da koy daal di gis kon doomu aadama fu mu toll rek am na lum sant yàlla lu mën a doon ah suñu waxee wax jooju nag dañ ko doon laytaay ci jamono mbokki jullit yi ku ne xam na ne bu ñu waxee baatu sant dañoo bëgg tam exploité li ñuy tuddee azamaan maanaam jamono juñ toll nii ndax jamono juñ toll nii dafa am benn saxsiya bu am solo maanaam personnalité bu am solo ku màgg koo xam ne jànkonte naag mbooleem xeetu coono yi daje naag bépp jafe-jafe ci dëkkam ak ci biti dëkkam waaye lam ca jublu woon rek mooy fexe ba yëkkati kalimatu laa ilaha illallah ba du laal suuf lam ca jublu woon mooy saxal ak njaam digganteem ak boroomam lam ca jublu woon mooy liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam ba mu gërëm ko lam ca jublu woon mooy rammu aw xeetam mu ja mu jànkonte ci biir loolu mbootem mboolem xeeti bundu mboolem xeeti tooñ mbooleem xeeti xotti waruma waaye mu ne rekk loolu lépp duma xañ lii ma bëgg danaa góor góorlu ba yegg ci danaa fexe ba jaamu yàlla danaa fexe ba liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danaa fexe ba yee sama aw xeet ci nelaw yi ñu nekkee ba kenn dootu leen mën a nax danañ fer ay nax mu góor góorlu di xeex jàkkaarloog ñam doon xeexal doon ay noonam ak nooni yàlla mu góor góorlu rek ñu jàpp ko ci mu nekk otage yóbbu ko ci prison dégg nga génne ko dëkkam ñaari yoon yóbbu nañ ko bitim réew fu sori Gabon yóbbu ko Mauritanie indiwaat ko ci biir dëkkam résidé ko en surveillance jëmul fenn waaye mu dogu rek di góorgóorlu di jaamu yàlla di liggéeyal yonente bi di am yéeney am lu mu def ndax doomu aadama ju ne war ngaa fexe ba am loo def mu taxaw rek dëgmal loolu ne faaw danaa ci yegg feek sama bakkan mi ngi fi rek kenn mënuma tere yegg foofu musta jàmbat nag lan moo lëkkale wax jii ma wax ak li ma jóge léegi ci cant lii ma la wax musu koo boolee benn baatu jàmbat wala benn jëfu jàmbat ak lenn luy wane ne lii ñu koy def naqari na ko kooku dimension bu kawe la ah mu daal sax ci di ko jaamu di liggéey ba yàlla sunu boroom yëkkati ko ci kaw ñi ko doon def loolu day wax ci xasidatu daaru ak tuuba ala inna nii yi ñaar ala inna nii usni ala inna nii arju waaye boo ñëwee ci ala inna nii usni ala gayri munaim wala ashtaki lil xalq min faqdi anumi mu ne déedéet man kay damay tagg yàlla di ko kañ dégg nga loolu nag moom rek laa ko réservel du ma ko defal ku dul ki yor xéewal yi te nag duma jàmbat jàmban mbindéef samay mbir wala ashtaki lil xalq min faqdi an'um yii ñu jàppe ay xéewal ak lu mën a doon loo xam ne mënu ma ko ñàkk su ma ko amul duma ko jàmbat mbindéef yàlla rek laa amal affaire moom lay waxal kooku dimension cant gi gën a kawe moo nekk moom mooy mooy loolu personnalité bi ñuy waxtaanee symbol la symbol national bi darajatil ula maanaam boo ko doon xool ci premier degré wu nationaliste moom ngay jël symbole national la ndax li mu bëggoon mooy saxal fi njub yar génération yi ba kenn du texee di wattu dëkk bi doon njëriñu waa dëkkam doon njëriñu humanité bépp te yàlla dimbali na ko ci loolu man na waxuma turam waaye dafa am benn uslub bu ñuy tuddee uslubu taarit wa talmiix soo jëlee loo gis ñi nga xam ne ñooy jàng xam-xamu linguistique loo gis tur wi da koo dab rek waaye mbir mi mu ngi fi woon waaye dañoo dëppoo ci di ko woowe nangam ngir buñ ko tuddee xel yépp dem ci kooku waaye bu ma waxee melokaan yi ma wax bala ma wax turam ñu bari ci yéen seen xel dina dem ci ki may wax kan la ki may wax symbole la nationaliste la wattu na diine jaamu na yàlla liggéeyal na yonente bi musta jàmbat defe na ko ci anam goo xam ne defalu ko boppam waaye ñépp la ko defal bu ñépp gisee seen bopp ci li ma wax nii ñépp dañuy xam kan lay wax bu dee ci loolu dafa am masal bu ñuy wax haasihi na ruddat ilayna lii dey ñoo ko moom doon ko wër daa feeñ ma jëlaat ko maa ko moomoon doon ko wër mu feeñ ma dencaat ko boo koy xool ci melokaanu kii may wax du lu kenn moom ñépp a ko bokk amul benn kuréel buy wax kii may wax maa ko féetewoo ki ci des yoonam newu ci waaye ku am ful la am fayda xam sa bopp bëgg li nga doon bëgg sa réew bëgg humanité dégg nga lii may wax danga ciy gis sa bopp kon kooku bu fekkee da laa réeroon xamoo ko boo ko xamee tey jël ko yaa ko moom kenn ëpplewule ci loolu mooy haasihi na ruddat ilayna maa ko moom doon ko seet gis naa ko jël naa ko mooy xaw xamewuma ko woon nii waaye xamee naa ko nii kii kay kenn duma ma ëpple ci mbiram kon suñu eggee ci jamono yi liggéey bu mag boobu ka ko taxewe woon di sant yàlla ci jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ne xarabu ci dara waaye dafa wëlbati di ci sant sunu borom di ci ñaanal mbindeef fi yërmande yaa malikal mulk yaa man jalla an xawad irham jami al wara haadiyan radaa fàtte na dépassement esprit dépassement maxawta maa xat nahahul xalbu min darar bi jaahi afdali man lillahi xad lajaa efface efface nga sax rancune bi war a nekk ci sama xol ma koy jàppal ñi ma doon jëflanteel loolu dafa far newatu fi liggéey jaamu yàlla ak liggéeyal yonente bi ak taxawu jaam ñi xettali leen moo tax mu amatuma jotu fàttaliku ñama daan def yooya moo tax fii rek laa jëm kooku su bisam yegsee ñu war koo taxawee war cee sant yàlla sunu boroom na ñëpp xam ne seen mbiru bopp la kenn moomu ko waaye nañ fexe ba def ko ci biir lislaam def ko ci biir reconnaître cant googu waxtaane ko baax na ndax li tax waxtaane ko baax na moom ku ñu war a jàngale la ndax euh, euh, personnalité bu mel nii ci réew kenn warul a jàngale ne kii diw mooy baayam diw mooy waajuram wu jigéen fii la dëkkoon déedéet kooku dafa yor ay xalaat yoo xam ne xalaat yi moom la ñu war a jàngale loolu laa bëgg a wax ndax ndax lu njëkk li ñu ngi koy def waaye loolu doyul nit ki xam kenn dañoo war a jàngale lam nekke woon lam doon dundee lam doon xalaatee lu ko may réussite bu am ni loolu la ñu war a xalaat ñu def ko ci biir programme yi kon nag kooku liggéeyam kenn mënu koo yàq liggéey bu mat la yàlla sunu borom moo ko barkeel te yàlla lu mu barkeel dana barkeel waaye jamono dafa bari waxukaay manipulation dafa bari ci biir wax ku nekk di wax lu ko neex ndax fu nekk da ngay dugg wax lu la neex waaye nag dafa am ñu fi weesu woon ba tey dañ fii ne waaye fi ñu koy waxee moo gën a yomb suba dañ fii ne mën naa am fañ koy defee wala fañ koy waxee mooy gën a yombaat kon génération yi ñi lu baax yitteel ñooñu dañ koo war a xam xam nuñ koy téewee ndax yonente bi moo waxoon ne jamono day ñëw ku yor lu baax na ko yóbbu ci sa dégéej kepp ko fa te bum la rëcc kon nañu moytu manipulation te lu baax fa mu am ña fa dem di seeti lu baax la képp ku fa demul wuti lu baax ni ñoom benn xamuloo ko waaye bu fekkee xam nga ko te nanguwoo ko yow da ngay dimbali ñi ko xam te nangu ko ndax day foo day fekk foofa gën a féex ci ñoom maanaam barab ba nga xam ne ñu baax ñoo fay dem bëgg lu baax ku bëggul lu baax bu fa demul bàyyee ko ña bëgg lu baax day tax ña bëgg lu baax foofa gën a féex ci ñoom aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa salaamu aleykum